workshop bi ci jàngale sëñ Abdou yal na la yàlla fay waaye laa xar ñaar kiñ ko tuddee alaaji Abdul Aziz benn ñaareel bi sëriñam sëñ Moustapha si responsable moral ku ne xam ne éducateur la yarkat la njabootam fu mu ne ci àll bi rek day góor góorlu ci diineem léegi rek ñi may wax noonu di njabootam jóge yoofu dañ ma indil kado ay kado benn montre boo xam ne maa redeytaale xaw ma montre bracelet bu jigéen la mu ne ma dama dégg ngay tudd sa benn doom Fatima ma bëggoon nga joxal ma ko ko fa Fatima ngi ci kër gi ma ne wol leen ma Fatima xaw ma sax moom kañ la fi géej géej na fi ñu woo Fatima ma jox ko montre bi mu jox ma beneen kaamil bu rafet ne ma ci laay waqaf daf ma njëkk ne sax may ma ma am nu ma la nuyoo dal di taal muy faatixa bi imaam mahmud xalilil xasari mu jàng faat li mu jàng faatiya téyeetul rongoñam moom xale bi faatiya bi jeex man ma taalal ko sama waxaf def ko ci làmp bi ci saal bi foofu moom yegg na yowmal xiyaam ñëwaat mu ne ma ndax dama yaa tax ma xam imaam xasari mu ne dama foogoon ni kilifa yi rek a ko war a déglu mu ne ndax man kursu ba lay gàmmoo sëriñ Moustapha mooy suñu sëriñ mu ne waaye at bi sëriñ Cheikh di wax ne dama bëggoon ngeen di ma tegal Mahmoud Khalil El yi su may ñëw ak be ba may génn Tiwaawan mu ne fa la ko fekk mu ne waaye dafa foogoon ne mag ñi rek ko war a déglu bi ma ko tuddee doom nag loolu laa la bëggoon a woo pour yëgal la ko. bi ma ko tuddee doom nag def ci moom waxtaan bu gàtt bu may def am na ko ma nuyu Belgique dafa ma nuyu rek jox ma yaakaar na cent euro xaw ma cent cinquante euro eh, ne ma maa ngi lay ndokkeel ci Cheikh Mahmoud Khalilil Xusari mu ne ma waaye tooñ nga ma ma ne ko lu tax mu ne ma dama noon maa koy njëkk a tuddee doom ci senegal ma ne ko ah da nga yéex rek <laughs> dab ma. ndax dama toog ci saal ba. waaw. mu ni asalaamaaleykum boog ñu ngi jéggalu sax xam na ñaari baat ñett rek ndax dafa dugg ci Mahmoud te ñoom amoon luñ ci waxtaane seere baax magam la ah. ñoo bokk ndey ak ñoom seere baax na ñuy rafetlu ci jataay bi yëpp di jéggulu kàddu gi ñuy yëkkati Aliou Diaw baal ma gis nga ñaar ñële it ñu nga jógee Italie Aliou Diaw tabaarakallahu nuyul ma sëñ moor kër sëñ Mor lañ jëm nii di leen ziyaara di nuyu ñi fi daje ñépp ngir yàlla wóllëre ndax wóllëre mooy wolof yi dañuy wax ni gannaaw lay féete mm-hmm. te sunu ndey sunu yaay dafa nu waxoon ni Serigne Ngok waxoon naa ko fi dafa mm-hmm. récupérer sama tafsirul quran benn kaset ni da koy jox shérif ma ne ko ah, ijaaza de <laughs> mu ni waaw bàyyil ma jox ko ko mhm. mu ndil ko daat koy indiwaat ni ma ah nee na yow mii la ma ne ko waaw <laughs> mu ne ah dénk naa leen sëriñ ndaxte moom xam-xam rek la beneen bi sunu magu daaraa ngi fi di imaam Youssou Guèye mhm. bàyyi ak sama bàyyi bokk baay muy sunu imaamu gox boobu yépp ak imaamu njaboot bi moom it suñ ko fekkee dañuy rafetlu jataay bi mhm. ñaareel bi nag suñu diggante maag Serif xam naa moom yittee tax ndaxte doomu aadama bu amul yitte mën nañu wax ni amul dara te moom kilifa gu haut niveau la ba pare te boo ko fekkee Europe mu toog ci sa saal waxtaan ak yow mel ni maanaam sa gan gu ndaw <laughs> ni baal waxit bi moo tax yitte jooju mooy mooy def remarque bi mm-hmm. pour wax ni la rek ni ku woyof la ci ñun ku tamit fonk wóllëre la gannaaw bi ñu sunu yaay boole ba léegi du ñëw Europe wootewul kon ko est que jar na ko fi ndax it ñun suñu tolluwaay tolluwul noonu ak yow ni nga toll waaye rek ngir yàlla ak wóllëre la kon noonu la ñuy wax wóllëre ginnaaw lay féete bu ñëwee ci Mahmoud nag ca saal ba ñuy waxtaan mu ni moom wax njëkk a wax ni sama sama beneen njaboot moom laa koy tuddee moo tax bi mu bi mu koy seetaanaat ci ci Chérif baax bi ma daf ko wax rek mu jóg ni soxna si déggal te moom kunta kunta la ma ni ko déggal sa jaaw sa sang bi <laughs> nee na dafa tuddee eh, eh, xoseyri njaboot mun ma kañ moom ngeen doon wax fi ma ni ko waaw ah yàlla nag moom bu la joxee rendez rek xaar ko ca pind ba ah kon nag yàlla na yàlla mottali ñuy joxe rek sunu ziyaar ak sunu feddaliwoon wóllëre di tamit respect euh, nu mu tuddati euh, bëgge jataay bi di ci bëggee ñépp rek tabaarakallaahu di wax ni tamit li muy wax naturel la ci moom naturel la ci moom li muy wax ci sunu kilifa tamit naturel la ci moom te loolu tamit ku am cër moo koy joxe ku am cër mooy delloo cër ku amul cër du mën a delloo cër ku xam cër mooy delloo cër ku xamul cër doo mën a delloo cër wax na ko sànq ci mbaam benn mbokk dafa ni ñëw laaj mbokk mi ni ko ñu jeexal fan la yàlla wax judd ci giléem nàmp ci mbaam nag mu ko génneel ci alxuraan mag ñi xam nga seen léebu yépp alxuraan la boroom daara yi ñoo koy wax juddu ci gileem nàmp ci mbaam mm-hmm. ah mu ni ko dangay dellusiwaat mba indil la ko ndax ah, juddu ci gileem nàmp ci mbaam mag ñi waxewuñu ko par hasard nii rek mm-hmm. mu ni ko fu ko yàlla wax mu ni ko juddu ci gileem gileem dafa sell te ñëw nañ fi benn xadara ci fa gannaaw at yële dégg eh, Seyd di wax ci gileem potentialité yi mu am mm-hmm. giléem bu naanee juróom mbenn weer ci kanam du mar te am na ñaari reservoir te dafa yiw yonent bi moo ko tànnloo fa mu toog ca Madina ñu bàyyi leen giléem gi mu tànn ak yeneen ak yeneen mu ne xoolal giléem ni mu teddee nag te yàlla wax ko wa illal ibli kay fa xulixat loolu mooy dem leen ngeen xool nu ma def ak giléem mm-hmm. mu ne kon nag boo juddoo ci giléem boo juddoo ci juddu giléem <coughs> am nga mbaax nàmp ci mbaam nag boo demee fa yàlla wax ni sawtul xamir mm-hmm. ina ankaral aswaat la sawtul xamir mm-hmm. mbaam dara baaxu dara am baaxul fajar moom day ŋaax fajar ginnaaw di noddu fajar waaye ŋaaxu mbaam du la yee te gin euh, sabu ginaara la yee mm-hmm. kon nag delluwaat ca source ya mooy nga fexe am mbaax te moom li wax rek ñëpp la yéene mbaax te woyofam toll na noonu su ko defee ñu ngi jéggul ci kàddu yi rek dañ doon ziar si mënuñoo rot si ci réew mi te duñ fi ñëw ziar ko ndax it moom it dañuy fay bor bi. day jóge ba Rome ba ba Rome. Mm-hmm. ñëw ba sunu dëkk ca Francfort ca gannaaw am na daj-daj bu metti buñ fa daj mais <laughs> ak sunu naar ba. dafa wàcc ci aéroport bi. ma ni ko nañ jël kaar man ma noonoo duma jël kaar. nañ waxaale ñu waxaale ak benn naar bi taksi distance bi nag dafa gudd mënuñu ko man dama gaare sama oto ca beneen dëkk pour jël si ko biñ ñëwee li ci yéeme biñ ñëwee ba wàcc ba ba mu wàcc ci aéroport bi ñuy waxaale taxi borom taxi bi ni day fay compteur bi te yóbbuñu ci prix bi mu ñu d'accord lu mel ni cent euros mm-hmm. ndeketewoo yàlla xam nga naar rek moom mm-hmm. naar yi ñooy sunu kilifa waaye tamit dafa ci am sant sant wa ndeke li mu daaneel compteur bi yépp ñu def lu mat deux cent wala quatre-vingts kilomètres ba agsi ci fi ñu war a jëlee suñu oto sëriñ bi ni ko ñaata la maay fay mu ni ko déedéet deux cent la pour cent la ñu waxa waxante woon de mu ne ko deux cent la léegi ma ni ko man duma fay la bàyyil ma woo police su ma woowee police ñun li ñu dàkkooroon lañ mu ne déedéet bàyyil ma fay ko ma ne kon nag doo ko fay naar yi nii la ñuy def noonu la ñuy def ñu am metti lool ma am loo metti lool ndaxte lu tax moom dafa d'accord ak moom waxaaleek moom ba pare te xam na ni gan la fi bi ñëwee mu redu mu redoubler prix bi dañ ko loolu duma ko seetaan soo ma bàyyi woon fii la ñuy police di fekk ndax xam nañ ni almaa yi amuñu caaxaal li nga wax ak mbir rek nga koy def mm-hmm. mu ne ma ñaan naa la ko bàyyil rek <laughs> noonu lañu ñu mujj ban tax fu ñu gis naar rek am na am caay-caay bu ñu àndal te ba ñuy dugg ci taxi bi mi ngi làkki arab wallahi wallahi wallahi bi yu neex ba ba convaincre la ala fii ne ca gannaaw ga ñu gis leneen mu ne ma ah, te nangoot bi ñuy fayeeku nangootul wax almaa nangootul wax sax arab dégg na leneen sëñ bi ma ko déggalee nag man ko bàyyil ma fay ko noonu lañ def ba mucc ci moom la kon coono yooyu yëpp ku koy daj nag ngir yàlla ak benn jëmm ak euh, delloom nag gën a doyati waar ndaxte kaar ba la toogati ba kenn xamul bu ko nettalee dañuy ree ba sonn kon nag mu ngi doonu ñu ngi jéggalu ci kàddu gi xam naa feddali wóol leere rek moo tax di bëggee lool tamit di leen suivre chaque instant ci réseaux sociaux di dégg bokk ci commentaire yi xanaa duñ feeñ nag waaye ñu ngi comprendre lépp di beral nuyoo toujours nag sunu imaam imaam Youssou Guèye yal na yàlla def ko mag di di imaamu zawiya bi far ñu gën cee kontaanati mm-hmm. kon nag waa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin seex ñu ngi jégalu bu baax ci ah, dog biñ la dog <laughs> ne neewoo fi waaye imaam Youssou Guèye moo la fi nekkal yow it fa nga nekk moom nga fa nekkal ndax bu fa woon la ngay def moo koy def ndax li ngay def foofa lay def fii fii tamit moo yor daara ji keroog sax maa ngi koy yedd maag Sayid ma ne ko imaam Yuusu nag da nga naïf bi mu ëpp naïvité baaxul ma ne ko bari na koy ñëw ci yow di la dóor marto yaa ko raw fuuf mën nga ko jàngal lu ne mën nga koo jàngal waaye ne yuux rek ne patt rek ñu di la dóor marto ngay on rek ma ne ko yàlla tegu ko kenn waaw yàlla tegu ko kenn da ngay fi ko tuuti nag yow Assane Diouf ma ne ko bari na ku nekk bitim réew ñu yaakaar ne dafa sàgganee diineem au contraire la ñuy def foofa mënuñ ko fii ma ne ko gis naa ci ñoo xam ne bi ñuy ne fii seen waxtu yi juróom sax mokk tey duñ rate dara ci waxtu yi juróom duñ rate dara ci xadara duñ rate dara ci wadifa ba pare ñu ngay gëstu seen àll wa ma ne ko parce que foofa dañ am jot te fii foofa euh, foofa amuñu jot te fii dañ am jot ma ne ko foofa doo naani attaaya doo waxtaanaani fooy waxtaan yi amul fooy waxtaan yi de amul ma naani attaaye fii amul ma dem ngénte amul ma dem dëj amul ma dem céet liggéeyi wàcc sa biir kër war nga torox toroxtaange weesuwut di génn ci sedd boobu di dang dangi foo jëm waaw kañ ma ne ko nag moo tax bari na ku nekk bitim réew cofoon diineem ba mu ñibbee ba mu demee bitim réew boo ko fa fekkee da nga ne kii du ki ma xamoon ci góor góorgóorlu ci jàmbar tey moom wóor na ma ne lam fay liggéey ci wàllu daara bu toogoon fii du ko mën ndax bu toogoon fii bëgg ko fee def gaayee ko naan doo ko fi defee imaam Yuusoo nga ne la toog daaram ji lu ne la ciy daj dëgg la wala déet léegi day ñëw fekk ñu suulal ko fa dara daara daara lu fa nit di suul yalwaan dundee lu fa nit di suul man nit ñi dañoo doyadee doyadee doyadi doyadi daara daara yërëmoo sëriñ daara bay bay dem di ut ay xarfa fuufa di ko ko suulal ci daaraam boo fi newoon ni noonu lañ lay def rek ba nga gedd <laughs> waaw léeg-léeg mu ngi nii ma bàyyi ba fenn imaam day découragé bu ñëwee rek ma ko ñu bokk di jóg di daanu ma ne ko noonu laa Laaji Maalik nekkee woon ak sëñ Tuubaa di kon fàkku nga ko daara yor daara ñu di la ci suulal ay yu xamul di toj ña nag yu kenn nit ñi dañoo ñàkk fayda façon ñàkk fayda boo xam ne nen yooyu doo ko baxal nga am tuuti vitamine nga yàq ko noonu jërëjëf sëñ Abdou dinañ jokkoo dinañ jokkoo jëf incha allah moom kenn kunta la sant waaye kenn du ko fàtte li ma naan ko da nga yooyu yëpp kaf la de waaye ku ko gën a jub gisuma ko kaf la de te yonent bi daf daan kaf te man li may kafee dëgg la nag ndax la muy dem dagana bari na waaye du dégg ngeen lim wax sa wujj yoral la sa doom nga dem jàngi beneen bi ci des bu ñëwee vacances wala mu ñëw période fii mu ne ko may naa ko sama ay nekkal ak moom te ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ te ñoom ñaar ñépp maa ko ko may ah mën naa tànn man wala mënumaa tànn ku ma ci tànnal nga am jabar ba faw ku ma ci tànnal nga am jëkkër ba faw waaye ku ma ci opposé billaahi di nga rëccu loo doon juddu man maa la ko wax parce que gis nga njabootu sëñ Moustapha bi fi jógee léegi responsable moral moustafchidina wal moustafchidat beneen cadeau bi benn bi laa wax beneen bi xam nga lan la kaamilu alquran la ak taysiir ak perkal pour kol mu ne ma kaamil bi sëñ Moustapha moo ñu sant ñuy jàngal alxuraan mu ne ma kaamil bii laa mos di waqafe mu ne ma taysiir bi sëñ Moustapha moo ñu jox ndigal ci limu Ahmad moom laa mos di jàngee taysiir mu ne perkaal bi nag li tax ma indi ko sëriñ Moustapha moo la ko seedeel devant tout le monde ne Chérif xol bi comme perkaal mu ne ma loolu tax ma indil la ñetti kado yii ci sama ndigalu sëriñ mu ne ma déggaatit nga wax ne imaam mahmoud xalilil xasari kaamil bi mu defee tour du monde sëñ Hadi Touré la ko jox Maodo Maodo Maodo yàlla dimbale na ko de sëñ Hadi Touré la ko imaam xasari jox ne ko kaamil bii laa defee tour du monde te imaam xasari xam nga min xufaaz min al xafizul quran la waaye léeg-léeg daf koy xool di ko jàng di ko xool léeg-léeg du ko xool parce que xool bi dafa am barke léeg-léeg mu xool ko léeg-léeg da gis rek muy mingi ah waaye ah bëgg xasari da ngay gis muy mingi rek nga xam ne non dafa yàlla we moom léppam dafa yàlla we moo tax mag ñépp moom lañ jublu mu ne li ma dégg nga wax ci moom nag moo tax la yow yawmin léegi moom lay déglu ndax dama foogoon ne Serigne Cheikh rek ko war a déglu xam nga ñoom dañuy respecté seen kilifa mu ne ma waaye yaa tax midi matin soir moom lay déglu loolu njabootu Serigne Moustapha ñoo ko seede ci man nee la sa jaada bale balaa ngay pare nanga ko tàllal nga jël ko ba borom xam ne def naa li ma ko santoon Belgique la nekk njabootu sëriñ Moustapha la. jënd ko commandé ko turki la ko commandé indil ma ko moo ko indi it ba fii ne ma xam naa ne zawiya bi am na moquette waaye nañ koy lal rek teg malaan mi ci kawam rek benn bu dee benn yoon sax baax na ma barkeeloo ko ci yow ndax li sama sëriñ sëriñ Moustapha di wax ci yow te la sëriñ Moustapha di wax ci man fekkewu ma ko te dama ne Serigne Moustapha boo waxee ci man mbaa xam la waaye ñépp xam nañ ne sëñ Moustapha amaluma ko benn njëriñ man dëgg la wala dëgg sëñ Moustapha mu wax ci man amalu ko intérêt parce que moom lu mu mën a doon moomu ko fopp walla déet kon nag suñ waxee ci man mbaa xam la waaye du ci man ba njobootam gi gëmewuñ ma yàlla waaw. ah. waaw. waaw. waaw. Thierno Bachir waaw waaw. wallaahi. jógee kaw la ngir teg bët Thierno Bachir ak sopp ñu moom it waaw waaw. ah maa ko may soxna. waaw. waaw hmm. ndeysaan wallahi wallahi Idrissa Gueye doomam bu nekk amerig wallahi ndeysaan wallahi moo tax nag ñun ñëpp nañ góorgóorlu man tey li ma fi ni ma nit ñi bëggee rek loolu war naa tax sax ma góorgóorlu ma war na tax ma am jom li ma Thierno Bachir mujj wax balaa muy dem États-Unis daf ma woo ma ñëw mu ne ma lenn rek laa lay ñaan bàyyil mer da nga naqari deret Chérif Ibrahima naqari nga deret naqari nga man sa bàyyi maa lay ñaan nga bàyyi naqari deret dégg ma ne ko waaw mu ne ma di ko bàyyi ma ne ko bàyyi naa ko bés ni tey mu ne ma bul merati mukk nag rawati ci mbooloo moo tax sànq balaa may julli ji jumaa fii laa tollu waaye dama ko wan na ndax la Thierno Bachir waxoon njaboot merloo na ma ba ma toll fii waaye xamu ko sax moom te bu doon ca jamono yële ca gannaaw duñ bokk oto sax ma moom jaral na ma wàcc oto bi dox ak tànk <laughs> yàlla xam na ah, nit da am kilifa. ci laa bi ma demee ba yegg ca jumaa ja nag laa ne Cerno Bachir Cerno Bachir yan na ko yàlla fay xoolal tey jii bu ma meroon jumaa ji du ma xam lu ma fiy julli te dañ ma invité te bu ñu la invité nga mer danañ ko xam <laughs> ndax mer kenn mënu ko nëbb surtout man dof bi nga xam ne bu ma meree ñëpp koy xam loolu nag kilifa gu la defal loolu waay waay waay kooku loo ko loo ko desee lati wala lum la desee lati te loolu ma ko wax ne mooy dëgg ci man dinaa soow nag waaye du mer comme ni ma def nii léegi dinaa soow waaye du ma mer parce que nit ñi boo soowut it dañ lay nappaaje rek waaw li Serigne Cheikh di wax nee na boo amee ku la matt mu ne bu ko matt waaye nanga ko siiñ ba mu xam ne yor ngay bëñ nga ñepp waaw Cheikh moo koy wax nee na ku la matt bul fayu mu ko siiñ nag ba mu fang xam ne am ngay bëñ nga ñepp mu xam ne yaa fayewut waaye mën ngaa matte loolu rek la loolu rek la. ah te yàlla wax nag faafu wasfahu alaa tuhibbuna an yaghfira allahu waaw loolu yëpp nañ ci bàyyi xel ñu ngi koy ñaan ñu ngi koy ñaan waay waaye kunu ixwaanan kunu ibadallahi ixwaanan waay waay nañ ànd nekk benn nañ ànd bëggante nañ ànd soppante nañ ànd wóoluwante nañ ànd te dëgëral yaakaar bi ci suñuy diggante te bañ di naxante nañ bañ di naxante nañ bañ di naxante nañ bañ di naxante baaxul yaa waaye lii Chérif wax léegi dama ko bëggoon rek dëggal biig maa ngi wax ak abu Aboubacry fu mu nekk nii mu ngi ci benn département d'outre-mer bu ñu tuddee Nouvelle-Calédonie amaana ñun ñu ngi guddi tey waaye ñoom ñu ngi samedi suba suba mhm. xëy na environ sept heures yooyu moo fa jot ñu ngi waxtaan sànq ci bëccëg bi balaa moo tëdd mm-hmm. wallahi mm-hmm. mu ngi naan ma la même chose li nga wax ni mm-hmm. nee na ma Amina mosul yëkkati kàddu di ko jàmbat soxla mu ne ma Souleymane Amina dafa bëri kersa mu wax ko ci tubaab ne Amina dafa am orgueil dafa jombal boppam di di ko ah borom këram la sañ ne ko di war na mën a yëkkati laaj ko mhm. jàmbat ko waaye loolu la ma seddal démb ma bëggoon rek euh, yokk ko ci li nga wax léegi ah seede la de mooy sëriñ li may wax rek man daal ku ma ci tànnal jabar sa ndey liggéey na jigéen bu ma ci tànnal jëkkërit sa ndey liggéey na man maa la ko wax ndax li ma yéene sama bopp laa la yéene laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li si man moom laay dund kum neex yàlla def na ko kum naqari yàlla def na ko man loolu lay dund yonent bi nee na seen ngëm du mat feeg du li ngeen bëggal seen bopp ngeen bëggal jaami yàlla yi man ci loolu lay dox billahi lazi laa illa huwa alxayyul qayyum loolu lay dund ah, loolu man ñépp laa yéene yiw doomu jàmbur ak sama doom laa ci yemale waaw ah, laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafan faridatan min allah man du man yàlla laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafan faridatan min allah yàlla ne njaboot gi xamoo ku la ci yoral njëriñ ëllëg te njëriñu àddina moo gën a tuuti ci njëriñ yi njëriñ mu nga amee njëriñ ci àllaaxira te xamoo ku la fay jëriñ ëllëg fa tabaarakallaahu nuyu nag asaatise yi fi nekk yëpp balaa may joxe kàddu gi oustaz Sidi Ahmed Mbay oustaz Ismail Cissé fa tabaarakallaahu oustaz Camara ak yeneen asatise yi làqu te gisuma leen oustaz Dia imam Dia ñoom ñëpp ay ima yi fi toog borom xam-xam yi fi toog yëpp ñu ngi leen di nuyu ndax ñoom it euh, loolu la yàlla wax ci alquran warasixuuna fi l mi yaquluuna amanna bihi kullun min indi rabbina wa maa yazakkaru illa ulul albab warasixuuna fi l ilmi mooy borom xam-xam yi kon nag ñu jël kàddu gi jox ko sëriñ Abdou Aziz euh, sëñ Mansour Seck ñu ngi lay nuyu ak Babacar Boye anamu moom it ñu ngi koy nuyu di nuyu ñëpp ki ci sa gannaaw nii kan na waaw Njaay la ma dikke fii ku fi toog rek xam naa la noo tudd imam Diop nga ne la toog imaam Abdoulaye Diop ah ima yi bari nañ fi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax yal na yàlla def. Hmm?